humri kalayaalil xaddimi boobu la mujj waxtaane kon tey jii la dugg nag ci juróom-benneelu mbubb mi juróom-benneel bi kon mooy doon ijxal xisaabi bi rijaali badri maa mada min durri ahlil xadri kon boobu bayit mooy doon suñu waxtaan tey di juróom benneelu mbubbu yi nga xam ni sëriñ Saaliwu moo ko moomale sëriñ Béthio na mbubbi sëriñ Tubaa la sëriñ Tubaa rekk a ko jagoo te li mu ciy wax itam da caa wéet yàlla ko ca wéetal mu bokk ci xàmmikaay yi nu koy xàmmee moom sëriñ Tubaa boobu bayit nag kon nañ ko daan tëralee rek lañ koy tëralee mooy njëkk a jéem a firi doog a dugg nag ci jéem ko waxtaane indi eh, itam Serigne Touba mi nga xam ne mbubbam la nan lay leere ci ni mu ko solee wéet ci waaye itam andi ko ci Serigne Béthio mi ko Serigne Saliou jagleel nan la ko firndeele ba loolu man laa leer daat koy tëje itam li nu ciy mën a jàngate nun taalibe yi suñu digganteeg sëriñ bi noonu nu ko daa tërale rek noonu lañ koy defee mu mel ni bayit bi nag Sëriñ Tuubaa boo ko doon firi dani ijxal xisaab bii xal defal yow yàlla xisaab bii sama xisaab xisaab bii nag eh, ci ci firi ko mooy tax nga mën a firi biri jaali badri kem ni nga firee xisaab yi moo lay jox biri jaali badri kon biri jaali badri dangay wax ni ci gaa yi badar waaye foofu firee gu ni xisaab yi maa xat mada min durri ahlil xadri kon eh, boo firee boo ne ijxal xisaab yi ijxal defal xisaab bii sama am xisaab xisaab ñaari isaab la bu dee xisaab bii ci arab mën naa firi xisaab bi nga xam ni regle lay firi te ëllëg yowmal xiyaam sunu boroom nee na mooy la muy tax bis ci am mooy ñuy régler jaam ni kenn ku ci nekk ñu régler sa jëf yi jëf yu baax yi ak jëfi safaan bi nga xam ne alxuraan nee fa amma man saqulat mawaasiinuhu fa huwa fii hiisatin raadiya wa amma man xafat mawaasiinuhu fa ummuhu haawiya dégg nga it muy wax ni inni xustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin laa yuuminu bi yowmil xisaabi nga baatum xisaab ñëw na foofu jàng nga itam faneen fa amaa mënu óotiye kitaabuhu bi yaminihi fa sawfa yuhaasabu xisaaban yasiran wa yanqalibu ila ahli masuran wa amaa mënu óotiya kitaabuhu wara asahrihi fa sawfa yaddahu suburan nga xam baatum xisaab foofu rek la lay firi mooy yowmal xiyaam man na am sax fi ci adina manam moy nuy nat ay jëf muy ñaar muy jëf yu bax ak jëf yi safan ba di nat ba xam ban moy ëpp di génné ak yi nga xamni mo dox sa digganteeg say morom bu ko défé ak yi nga xamni mo dox sa sa borom su lako loolu dañ koy isab isab nak moy lay tax ci nafsu rek ban war koo setal kon wàllu isaab ci wàllum prix benn prix boobu mooy prix bi ci njëkk prix boobu nag su fekkee moom nga ko prix dalay jox beneen maxnaa boo xam ni Serigne Touba mi ko wax itam loolu am na ci am mbubb kon boobu laay njëkk a firi ndax xisaab yi boo ko firee mooy tax nga mëna firi biri jari ba diré su féké dang ko jappé hisab xisaab boobu ma wax moy hisab bi nga xamni dañuy natt mbiri nit ci ay jëfëm yiñ ci wara hisab bo bu boobaa lu biri jaale ba diri di firi beneen firi mi moy hisab dara firi itam ci arab manam maqama waccu way daraja nga xamni dañ nan diw Euh, nattuwaayam xisaabam nattuwaayam mu ngi toll ni maqaama sàngam loolu it dana ko firi bu fekkee ni itam boobu nga firee biri jaali badiri day am maneen max naa kon icxal defal xisaab bii kem ni ngay firee xisaab bii ci ñaari baat yooyu muy firi muy xisaab bu njëkk gi ji firi nattale mooy li ma wax léegi li ni isaabi nit ci ay jëfam di xool bu ëpp ak luñ ca war a natt ak luñ ko war a réglé le wala boog mu mën a firi itam wàccuwaay muy maqaama bu ca nekk nag am firim day jox am piri biri jaaliba kon damay njëkk firi ci xisaab bi nga xam ni moom la ñuy def ab jaam di nak ci nafsu la juddo bu bobu da nga nan ijhal defal hisabi sama hisab bu baba biri jaali badiri ci darajey wa badiri lay fi di manam baagi bu baba baaw tawasul la baaw tawasulu moy ngay ñaan dara ne yalla defal ma nangam ci barke diw wala ci barke ñom diw comme ni nga xamee ni loo loolu la rijaal ñëwee bu fekkee da ngaa firi isaab noonu yi muy isaab boobu bu boobaa bi rijaali gi ñaan lay doon ci barkeb gaa yi badar ndax baa gi baawu tawassul lay doon ndax baa ci arab ci wàllu grammaire am na fukki baa ak ñett maanaam fukk ak ñett tëris baa dana am teri signification boo xam ne benn bokk ci moromam jamono ju nekk nag benn ca baaya ya mooy jox max naa baag yi am na baaw istihanatu am na baaw kilisaaxu am na baaw tahdiya am na baaw xasmu am na baaw xawdu am baaw badal danañ ko wax baaw xaal am na baaw tabxidiyatu am na baaw xan am na baaw xalaa am na baawu tëxkiit fukki baa ñett yooyu ci grammaire baa yooyu atte bu fekkee nag xisaab bii danga ko firee xisaab boobaa baa gii baawug tawasulu la maanaam baawug ñaan joo xam ne dangay ñaan di tawasulu sag ñaan ay ay ay ay nit yàlla nit ki sëñ Tuubaa di waxe ni yallaahu bil Moustapha yallaahu bil nga baa googu bil Moustapha sindiidi yallaahu wa bi xaliilika Ibrahima yallaahu wa bi kalimika nga xam ne bi lay jiital yàlla maa ngi lay ñaan ci darajey Moustapha may sang ba loolu lañ tuddee baaw kawasul ak ci darajey xarit ba Ibrahima. wa ak ci darajey Muusa ba yonente jeex wa bi xalilika wa bi Muusa wa bi Suhaybin baa googu nag moom lañ tuddee baawu tawasulu benn la ci bàyyi ci fukki baa ñett yi bu boobaa nag baawu tawasulu lay doon bu fekkee xisaab yi gii da nga koo firee xisaab ci firi mu njëkk mi boobaa baaw gii topp rijaali badiri maanaam bi bi googu rek mooy jox max naa rijaali ba diri niki noonu yéen bii boo ko firee ja bi baa gi day sensé baa gee joxaat maqaam baa joxaat max naa signification rijaali ba diri lii may wax ñi ñi jàng balaax ak naxu te duñu topp ci internet bi ak dina teewlu danañ ko xam ñoom ndax damaa bëgg prix mi jaare ko ci wet yi mën a jaar yëpp te wet gum jaarit nga xam ne Sëriñ Tuubaa amul morom et kon icxal defal xisaab yi sama xisaab biiri jaali badri ci dara yi gaa yi badar ya mooy ahlu badrin ñooñu nag eh, mat na noo tawasule ndax seeni maqaam rëy na dinaa ci wax tuuti maa qad mada min durri ahlil xadri sama sama xisaab na ko def ci barke waa Badar maa muy la nga xam ni xad ma daa wéy na min durri ahlil xadri ci lori ñooñ wor workat ya mooy tubaab yi alxadru buñ ko bindee xaaf comme alxadru gi ni bindee leelatul xadri kàttanu yàlla lay firi wala ay dogalam waaye buñ ko bindee xëyin comme fii nii wor lay fii di wor tubaab bi la ci jublu kon bu dee max naa moomu la day mel ne sëñ tubaab na ni su fekkoon ni ku ni isaab laa ni ma àndeek tubaab yi diir bi ma ànd ak ñoom ñuy jël ay lor di ma teg may tegoo nattu yi ngir yërëm jaam ñi ak bëgg leen ramm ak bëgg leen a xettali yooya tubaab yi doon ma teg ni ngeen xam ni yooyee bu ma doon ku ni isaab loolaa wekki sama isaab ba man kenn duutuma isaab ndax mbooleem yi nga xam ni mooy tooñi jaam ñi moom laa toggoo teg ko ci sama kaw ngir ràmbu jaam ñi loolee nag su ma doon ku ni isaab moo moo doon li remplacer isaab buñ ma waroon isaab kon loolu da nga ca dégg ni sëñ Tuubaa mu wéet la ndax koo xam ni di àdduna xeweeg léegi ku mus a jël tooñaay ak mbindeef yi ak ni mbindeef yi toll daat koy warlu ne yàlla jaam ñii tooñ gii ñu lay tooñ bam jural la soo doon mer nga bëgg leen a mere ba tax ñoom ñëpp nar a alko nga nar nga nar itam sa xéewal yii boo leen meree nooratuñ cee jot man mii maa ràngu mboolem sa mbindeef yi nañ ñëpp mucc nañ ñëpp texe nañ ñëpp raw suñ borom ni ko waaw seen bàkkaar yi nag ak seen tooñaange yi taman ma xasa wax ni fa man yaxmal misqaala sarratin kairan yarahu wa man yahmal misqaala sarratin sharan yarahu ko xassa def lu bax donte da tuti ni sarra dina la ko fay waye ko def lu tam donte ni sarra la tollu ah ci sa kaw la jëm seen tooñaa ngay nu koy def serigne touba ni ko jëlal nga tek mako muy ay nattu ma toggoo ko daal koy jël teg ko ci sama kaw te ñëpp mucc falaa tubaaqishum bu leen topp bi maa laa yanqusuk ndax sa xéewal lii ak tooñ gi ñu lay tooñ du la wàññi dara yow mënuñu laa tooñ a tooñ ba tooñ gi wàññi la wala humu habbil lasi laa yanfahu sa xéewal li nga yor itam boo leen ko joxut du la yokk dara yow xéewal yi doo ko denc bam mu dara gi sa yàlla di seen yi itam ta bare bari ba wàññi dara sa yàlla ji ya muqallib al xuluubi xalib qulubana anil huyuubi fala tuwaqishum bu len jàppe bi kusri bihim ki seen bakkar yu bari yi fa innahum ñoom day wa in hasawka ya ahad li xaflatin mooy gii ñu lay moy seen càggantee ko waral rek lam yusrikoo bika ahad waaye xam na ni yaa yàlla de dañoo lottu rek moo tax ñu di la moy waaye duñ la bokkaale kenn booba mi ngi pérédel jaam ñépp ci kanamu yàlla wa innahum abdaanuhum la taxdiru ala balaika li duf hin yasharu daan ko sa sa sa mbugal yii ak sa duma yii sa jalaal jii ñoom di àttanun ko boo leen ko wanee dara du ko jar ay waay jéggal leen yeeramal iya, ñëpp suñ borom ne ko ah li nga ma wax de uma ci pexe waaye daal lenn lay man seen bàkkaar yooyu yépp mayam la ko Sëñ Tuubaa nee na ma ne ko yan ma lépp muy ay nattu peese ko ba xam ni mu toll bàkkaar yi min def yépp nga jël natt yi ni toll gàll ma ko man Sëriñ Tuubaa ma jël ak moom tab bi ci tukki bi liggéey ko ba ma te duma ànd ak kenn loolu yi nag xam ngeen ni Sëñ Tuubaa da caa loolu nag daa wax ni bu doon ku ni isaab loolu mu gàddul jaam ñi moo wecc isaabam ba kenn duutu ko isaab kon soo ko firee noonu ci buntu bu njëkk boobu mbubbum Sëñ Tuubaa lay doon kon da cay wéet kenn du ko ca fekk noonu itam boo ko firee da koy gisaat ci bi mu ko moomalee sëñ Béthio digganteem ak moom xam ngeen ne day sëñ Béthio lu ne la toggoo ci dina baat bu ne waxees na ko ci lu ñaaw lu ñaaw lu teg nañ ko ci deram waaye lépp mu nanga ko tegoo su xëyee ne jéggal naa ñëpp te dara wëralu ko lu dul wisaare yërmande Sëriñ Saliou fu ne jaarale nañ ko fa lu ne tegu na ci kawam te dara tëgg ko ko lu dul jaam ñi am yërmande yi Serigne kon kooku bu ko Serigne Saliou solee mbubb mi àdduna sépp xam na ko kenn ku ne ci nun bi ngay jëbbaloo ci moom te ca njëlbéen ga say bokk xamuñu woon daanaka say bokk baat bu ne teg nañ ko ko wax ju nekk jëmee nañ ko ci moom waaye mu nangoo toggoo yépp nangoo toggoo wax yépp nangoo fanaan biti nangoo wan ginnaaw njaboot nangoo wan ginnaaw soxna wa nangoo wan ginnaaw këram yi di fanaan ci mbedd yi di dégg lu nekk ñiy sànni xeer di sànni xeer ñiy wax lu ñaaw di wax lu ñaaw liñ jéemi pexe di ko jéem mu toggoo lépp rek lan la ci jublu jaam ñi jariñoo Serigne Saliou ñépp xettale ko ci yërmandeem kon boo ko jëloon ci wet googu rek da ngay daal di gis bi mu ko ko moomalee ni mu leere foofu waaye nag daa amaat meneen max naa nag mu gën a xóotaat boobu gën caa rëy nag booba itam moo gën ni fàng nag moom kon firi naa xisaab yi bu njëkk gi kon bu njëkk bii ma firi leeral naa nekk Sëriñ Tuubaa wéete ak ni mu doone mbubbam lu tax nag mu firi noonu mooy boo ko firee icc xal defal yow yàlla xisaab bi sama xisaab mooy xisaab googu nga xam ne dañ koy def nafsu biri jali badri boo ko firi xisaab googu nag baawu tawasulu la nga naan biri jaali badri ci barkeb gaay badar ya sama xisaab nang ko def ci barkeb gaay badar ya ma mu doon la nga xam ne xad ma daa wëyoon na min durri ahlil xadri ci lori ñoñ wor ya te mooy tubaab ya kon bu mom leral na la ko waye maneen maanaam mi mi amaat nak moy hisab bi da mën firi firi way ci balaxa moy maqama ta boba itam boba la gëna japp man ñaar yëpp mën ne nak moy icxal defal hisab bi sama tollu way sama maqama sama daraja diri jali badiri diri bu boba nak baagi ak xala lay doon nga xam ni baawug istihlaawu la baa mu doon baaw maha nga baawu xaaliye la na wax naa la léegi ci tàmbali gi baa fukki max naag ñett yi mën a am ci arab ci wàllu grammaire boobaa boo firee xisaab yi mu doon wàccuwaay baa gi ak maxa la baa mu doon baa xaal ndax ñoo bokk lu ñuy dox moy defal sama way mu toll ni waccu wayu gaay badar ya moy ahlu badirin ngani ah wa lolou graw na di muni dedet waxuma ni na tollok maqama gaay badar ya dedet dedet dama ni ci biir sama dundu gi daf ci étape ba ci jitu étape boba la wax ni buñ ko xeyma dajale gaay badaria. badar fii nag da ko def pluriel waxul rajulu badiri rijaalu la wax rijaalu badiri 313 la ñu ñoom gaa yi badal ñetti téeméer ak fukk ak ñett kenn ku ci nekk nag ak maqaamam boppam yàlla taggal leen ci boppam sëñ Tuubaa dani boo leen boolee ñoom ñépp seeni daraja ba teg ko ci balance daraja jooja maa ngi ko yoroon maa qad madaa min duri ahlil xadiri jamono ji nga xamee ni maa ngi ci tubaab bi ci biir géej gi booba jamono laa yore woon maqaamum gaayu badar te xam ngeen ni ginnaaw géej gi sëñ tubaab feeñalaat na maqaama ci boppam moo xam ni kenn du ko xayma ak bi woon ci géej gi ndax sëñ tubaab lu mu mujj a feeñal moo ëpp doole la weesu woon diggante gànnaar ci yéen jolof ba ni mu ñëwee njaareem def fa fukki at ak juróom ba nii nu nekk suñ jamonoy tey bis bu set saa su ne simine su ne Sëriñ Tubaa ngi seeñal lu yas peq lu gàccal la weesu woon nee na jamono ji muy nekk ci géej gi rek bu nattee tolluwaayam booba moo toll ni gaa yi Badar na xam ngeen ni dem géej gi sëñ Tuubaa ci sahil bi mu def lixtikaaf lixtikaaf nag sunna la yonent bee ko jàngale ci fukki fan yu mujj ci weeru koor lañ koy def nga xam ne jàkka ja ngay dëkk di fa wéetal yàlla yonent bi moo ko daa def bi mu koy def ci jàkkay daaru xuddoos ca Tuubaa gu njëkk ga sëñ Tuubaa nee na foofee fala ma rasulullahi feñu won jahran moy ma ak mom mu dal di nema moy boba nak neena gis na mu and ak mbolo moy rijaalu badri gi moy ahlu badal yonent bi ni li tax ma dik dama la bëgg yëgal ni li tee nga don khutbu samaan ki mom jamono ñetti weer rek a ci des ñetti weer yooyu nag laa la bëgg a taxañal nga faf ko moom tey nga xam ne koy far moom tey sëñ tubaa nee na bi mu ma ko waxee ma de baax na lu la ndax yëngu ci jamono laaj la ndigal su ko amul du yëngu jamono jëpp wër ngeen këpp ku am googu maqaama maqaama mu kawe la ma ne ko waaye nag bëgg naa lu këpp mu ne ma loo bëgg ma ne ko gaa yi dara la te foo jëm nu ànd ak yow ci laa bëgg a bokk muy ahlu badrin gii neen mu mel ne yonent bi dani ko ah loolu day la ko doon mayee faat na mooy tuur sa deret ci yoonu yàlla nga xam ne ñoom tuur gin tuuroon seen deret ci yoonu yàlla nga xam ne ay martyr lañu moo leen may ci lislaam seen daraja rëy naa rëy ba lu xut bu rëy rëy maqaamam xut bu moomu jotut maqaamam saxaaba yi Seyd si Ahmad Tijaani nee na al maktuum nga xam jot naa doon xutbu si Ahmad Tijaan moomu nee na diggante ñoom xutbu yi ahlu badirin mooy saxaaba yi mu ngi mel ne diggante piccum përëtaan përëmtaan mooy picc mi dàq naaw ci picc yi ak melentaan xam nga ne diggante picc mi ci kaw ak melentaan mi ki suuf sorente nanu ba nag bokku nu nuy doxe ndax bee day naaw te naaw a gën a gaaw bii day diriku nag te luy naaw ak luy diriku seenub dox tolloowul neena nak non lañ leen mané ñom ndax ñom seen maqama sax ag na ci fas wu ni yéeg ba ba fas wa sonn gémmin nga fuur fuuritu gémminu fas wa mo upp maqama ci yalla jinni walu yi gëna mat ci jamono am sax ñu ni fuurit ma bu leen laalé ñom jinni yépp sey ngir maqama mu rëy nga xamne seen daret ja kum jaxasoog ta daret seram aram sawara kon loolaa ëpp xutbu mu mel ne Sëñ Tuubaa dani ko ci gaa yi daa bëggoon a bokk yonent bi ne ko loola faat na ndax tuur deret da ko doon maye mu ne ko boo ko mënta am de bàq bàqo waaye xutbu moom lii ma ko gënal loolu li ci Sëñ Tuubaa jàngale mooy Sëñ Tuubaa kenn xamu ko yonent bi nag tegal ko ne ko li lii ko mën a wecci te lii kun ko mos a wan doo ko ñeme ndax boo ko laalee seey té la nga jotoon am ko kus dan ci yalla dañ koy supprimer seigne touba ne ko nañ mako tek xam nga ban ko ko tege nga deg seigne moussa kanan yan ban yamon yan ban yanon khutbu ya ak dalia. ta ya te ko moko ko fab raw gaaya nga xam ni loola daa mel ne sababu tukki bi loolu yi bind nako ko ne lillahi wa ahli badri sa yara humur yi kalayaalil xaddiri bëgg gi ma bëgg yàlla bëggoon a bokk ci ahlu badrin moo ma tax a dem ci géej gi waaye mujj naa nag li ma am ahlu badrin ñu amuñu ko ndax man sama bëccëg bu ne leetu xadar la léegi nag bu ne ci biir tukki bi la la jàlloon ci biir tukki bi rek lañ nooy xayma naan ma bokk nga ci ahlu badar muy bind naan sahida lillahu bi anni waahidu min ahli badrin max anni jaahidu waaye xam nga ni loolu mooy màqat madaa mooy jamonoy tukki ba Sëriñ Tuubaa ki ni muy feeñale bëggoon na noo wan ni amut moroom ci dara bi mu jógee ci tukki bi 1902 la ñëw Sénégal 3 mu dem gànnaar mooy 1903 ba 1907 la fa jógee waye bi mu bind dari ni nga xamni ni la boba da bind ne waxuma len ni ahlu badri no tolo dedet lanuy reey reey legi dama ni ma u midaad yi kaddimaa fi qasawati man bi fawsi si ya yaa man midaadiya jaxalta kaddimaa fawqa suhadai ba nga xamni nim ni ko waxe ci nuru dari ni bi non la ko di ci xasida subuhiya bi daal ne legi nak da ji may bind sama khalima yi nga xamne da ji bind khasay yi bu ngeen dajalee darajey gaay badar yeb sen deret walé ba tax ñu doon ay sahid muy ay martyr bu ngeen dajale ñom ñep ñi 313 ku ca nek ak maqamam ngeen plus yeb ba jox leen égal ngeen xam ci lu muy toll ngeen teg ko ci balance sama daa ji may bindee moo ma romanteeg ñoom ñoo mooy mujj man ñooñu kon kenn du ko tëkkaleeg lu mel ni ñooñu waaye mujj na weesu foofu fépp di wax ne waxuma la badar waaye yónnente ya sama araf yi ak seen jëf yaa tolloo waccaxal xuruuf yi ka fi aali nga xam ne daa mujj mëddee leen noo xam ni ba fii may waxee yow lislaam mënta àtte loolu ndax l'islam moom ci wàllu téere mënunoo xam kopp ahlu badirin waaye sëñ Tuubaa ci li mu doon te loolu kenn xamu ko moom daay boppam ji képp moo man ñooñu loolu nag sañ-sañu sëñ Tuubaa la mbubbam la du du l'islam di àtte yëfi sëñ Tuubaa la nga xam ne foofu mu ngi teel a àtte ñii xalaat naan Sëñ Tuubaa wàlliwulaak xutbulaak ñooña ña leen man mooy ahlu badirin ahlu badirin mooma nag ña leen man sax Sëñ Tuubaa man ñooña ëpp leen ndax daa yi boppam ji sax féete kaw yooyu yëpp loolu maqaamay boppam lay wax waaye yàllay boppam ji Sëñ Tuubaa da ci wane yàlla ak yàllaam ji loolu nag mooy ñaareel bi iccaxal kon defal xisaab bii sama makama, sama way biri jali ba diri def ko mu tollok maqaamam gaa baral ya waye waxuma neng nag nii naa tolloo ñoom daraja déedéet maakat mada ca la wéyoon min duri ahlil khadri jamono yama tuba be tek lor jooja jamono la wax nan xayma la ma feeñaloon ak waxe ji jamono Ouais, dis-je, Manon. Je sais bien. Allô Allô, Miller ok léegi jii jamono nag loolu sama darajee bopp la loolu Sëñ Tuubaa wax nag muy dem ba sa daajooy bindee féete kaw gaa yi ba dal loolu lislaam mënu ko xam waaye mbubbum Sëriñ Tuubaa la da caa caa wéet sëriñ Saliou bi mu nee sëriñ Béthio mbubbum Sëriñ tubaa la jagleel nan la ko loola itam da koo firi firi mo xamni bu dee bima la jëk wax muy mbirum isa bi mo ma waro na la ci jox ben exemple concret Serigne beccio Serigne saliwu dako musa wan fani wax technopole ca dakaro bu jëk ba melni ku ko fa teurel mel melni ku jël lu ni rendé melni ku koy rendi di tuuru Serigne saliwu jël bu bopam loxo mbubu garaam mbubu ba di fompal boppam deret ji di ko fomp di ko fomp sin beccu ne ko moo mbakkee lii lu mu mu ni ko dañ lay takkaleeg mbooleem say say say yëf yi nga xam ni mooy mooy mooy yëf yëfaan nga xam ne li Sëñ Tuubaa doon njëkk a wax nii ba ma doon ku nuy isaab la wëyoon nay wekki sama isaab loolu sin beccu sin jaar na fa ak moom ngi firi bayit bi waaye bu mujj bi ma la wax itam ci ni seigne touba wax ni gaay Badar ya sama den mo melon ni kumay may ak ñom waye mu naa duma seen morom loolu yi daam fukki seigne jaar ak mom bo xamni lu mat nyom la ngir nga xamni solal ko eh, sëñ beek Sëñ Saaliw ko musa wan mu dugg ci biir ahlu badrin ñom ñepp nak ñi ngi tok ñi ngi taxaw don nak ay ponkal ña nga sen lamba yu wex ya takay sen der ya nga xamni ni badar ya ku len gis xamni gis nga len mu gis ñep ñu don mbolom rafet mu am daraja serigne Saliou dugal ko ci sen bir waye mu don ca liñu wax tungali moy ñu gàtt ñoo ñii gus ca kaw mu don tungali ci sen bir waye ci bir tungali gi mu don moy mag nak di màgg di màgg ba mujj sut leen ñoom ñépp yëmul ci sut leen mu leen di jox ay ndigal kum ca jox joxañ nga daw lu mu la digal nga def ko mu ñëw nettali ko Serigne Saliou Serigne Saliou na ko noonu rek la demee nga xam ni kon firil ne li Serigne Touba wax ni sama njëlbeen lañ xaymaa ñoom ngir waxoon naa yonent bi ni ko bëgg a bokk fii tax ma dem kon dinaa leen wan lu wane ni bokk naa ca waaye loolu taxu mu woon a jug ba muy wane lam doon nag wane na ni mooy kilifa ak ñooña te Serigne Saliou itam bi mu ko moomalee sin beccu rek képp ku am ndimbal danga ko daal di gëm kesancé boo xamul nu mu demee waaye nag wëlbatiku waat na leeralawaat ko ko noonu waaye ci biir li Serigne Touba dem naa ba sama daajee ëpp doole loolu yi da koo firiwaat ci digënté ak seen nak ndax ahlu badr ñooñu li reey reey dara daraja am na ñu leen ëpp daraja ci l'islam ñi leen ëpp daraja ci l'islam nak moy ahlul udaybiya té loolu ba démé ci hadith mom mom mom wéral nañu ko hadith yi dan ni yonent bi ni ahlul udaybiya dañ leen antum xayru ahlil ardi kep ko xamni fekkee nga Udaybiya mooy jaayante ga bay xatu ridwaan nga xam ne am nga ci ngërmul yàlla yaa fiite kaw ku fekke woon Badar te fekkewul Udaybiya te jax Jaxfar nee na ci biir saxaaba yii rek am na ñu fekke Udaybiya fekke waat maa maanaam fekkee nañ Badar fekke waat Udaybiya waye du ñepp am na ñoo xam fekke nañu Badar ak Uhud waye fekke wunu Udaybiya waaye képp koo xam fekke nga Badar bok ci ahlu Badrin te fekke wu Udaybiya ka fekke Udaybiya mo la fete kaw ci yalla la xam di la xam ta bu fekke wa Badar la wala qad xafallahu xankum la alxuraan wax wala qad xafallahu xankum ñu daan wax ne nag alxafu ak arrida dañoo féetante kaw waa Badar yàlla jéggal na leen toppatu leen dara àjjana leen jëm defis te it jox leen maqaama mi mu leen jox waaye taxul mu ne nag am nañ ngërëmul yàlla waa Udaybiya nag dañoo am ngërëmul yàlla te ngërëmu yàlla wa ridwaanu min allahi akbaru moo féete kaw lu dul moom saalika huwa alfawzul xasim kon waa Udaybiya ñoo féete kaw waa Badar ku fekke Badar te fekk waa Udaybiya ku fekk Udaybiya la féete kaw seen becc nag dem na ba ña féete kaw gaa yi Badar am nay donga moom sax yu leen yu tolloog ñoom baa nu féete leen kaw ndax lu naqaree wax la waaye faaw sant ci Serigne Saliou leen di tax mooy ay taalibeem dañoo am ngërëmul yàlla te képp ku am ngërëmul yàlla ku fekkee ba daal te amul ngërëm yaa ko ëpp doole te moom dongaam yi am nañu ngërëm ñoom ba noppi képp ku am ngërëm di ko suuxat te tamit amaat wasila gu la suuf ci biir yàlla daa yees nag yeesaay boo xam ni rëy rëyaay boo xam ni daa néexut a wax waaye Serigne Saliou woo ko def loola amul moroom kon nekkate moom bu ma nee dem ba ay dongaam ñoom toll foofa kon waxuñu ko moom mi nga xam ne ci moom lañ ko tollee kon kay xanaa Sëñ Tuubaa bam ne dem naa ba sama daay gi sax moo leen féete kaw bu ko moomalee Sëñ Béthio dema dem moom ba ay dongaam mu feeñal ci ñoom maqaama moo xam ni boo ko tegee ci xam-xam romb na loola mbir mi firiku na moo tax eccaxal xisaab yi bi di jaali badiri maaxat badaa min duri ahlil xadiri andil naa la ni ko ni mu firikoo ki Sëñ Tuubaa ak ni mu ko jagooyee ci ñaari fànn yépp leeral naa la itam bi mu ko jagleelee Sëñ Béthio ni mu ko firee ba mu ne fàng ci ñaari fànn yépp li ci ciy jànge nun taalibe yi itam mooy sunu tawféex gi nu am ñun ba doonuñu ci dara kat nun ba noppi ñu boole nu ci nun kat defal nañu tawféex goo xam ni bu nu ko xamee danañu gën a fonk sunu taalibe gi gën a fonk sëriñ bi gën a fonk ndigalam yi gën a fonk bisam bii di 17 afril waaye gën a fonk lépp li yitteem yitteem nag gépp fan la këram geek cantam geek ndigalam leek rawatina ni mu bëggee kër bur doog la neen moom daal lu nit bëggam war doon ndax xoolal ñii liñ daj ci lislaam niñ jaayee seen alal bàyyi seeni soxna bàyyi seeni doom ñàkk seenu njaboot gàddaay ànd ak yonent bi tur seen dara ci yoonu yàlla ñàkk seen alal ci yoonu yàlla ba noppi tur seen dara ci yoonu yàlla nga xam ne fekki wuñ ko danoo faatu doog a am yii maqaama ñun nag ñàkkunu suñuy soxna moo nu may soxna moo nuy njaboot may nuy kër ñu dëkk ñuy solo bu baax nekk ak sunu njaboot ñàkkunu sunu alal dañuy xëy di liggéey yi ba noppi am maqaama mu raw loolu eh am na nu tawféex moo tax loolu ku ko am lañ ca war a jàngate mooy fonk li la ko may ak def ko muy sa yitte kon loolu mooy bindu tay bi ci mbubb yi kon yàlla na fi yàgg tànn ak wér